mooy déclaration de patrimoine bi nga xam ne kii di OFNAC mu ngi ñuy xamal ne assujetti yi jóge na ci 34 ci atum 2021 dem ba yegg 69 ci atum 2022 yokkute boobu nag li ko waral mooy élection locale yi ak gouvernement bi bees bi nga xam ne kii di Macky Sall amaloon na ko ci jamono joojee ba mu tàbb ci ay ministres yu bees ay directeurs générau wala sax ay chef de service loole yokk li mu déclarant yi ba ci 1325 waaye nag rapport bi mu ngi xamle ne li mu déclarant yi day wàññeeku at bu jot suñu sukkandikoo ci chiffre yi lu ci mel ni diggante 2014 ak 2015 amoon nañu lu toll ci 552 assujettis waaye nag diggante 2016 ak 2022 nga xam ne mooy giir gi gën a yàgg li ñu jot a enregistré mu ngi toll ci 773 assujettis loolee di wane wàññite bu baax bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci wàllum déclaration de patrimoine at bu jot ci biir rapport bi muy xamle ne ci atum 2022 lu toll ci 40 pour cent dossiers yi nga xam ne jot nañ ko ñeel ay déclaration de sortie office bi dafa laaj ñu mattali ay information ngir mën a leeral yokkute patrimoine bi nga xam ne déclaré nañ ko ci dossier yooyee loolee di wone ay jafe-jafe ak ay limites yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci lii di déclaration de patrimoine ba tax of nag ci boppam di laaj ñu amal ci ay réformes li ñeel investigation yi nag bëri na ay bataaxal ñu ci mën a càmbar rapport bi mu ngi xam ne ne lii di yorin bu bon guerre fraude détournement wala sax litige foncier yooyee ñooy infraction yu ëpp yi nga xam xam ne visé ko ci plainte yi donte sax infraction yooyee mën nañ leen requalifier ci biir enquête bi teewul enquêteurs yi ñu ngi xamle ne bëri na lu ñuy jànkonteel ci seen mission ay infraction yu ni mel loolee di wone na guerre bi bëri na ci biir réew mi mu gën a bëri nag ci lii di secteur administratif bi ndax tableau bi mu ngi wane ne administration bi moom moo ci jiitu am lu toll ci 69 pour cent mu topp ci secteur privé bi nga xam ne mu ngi am 15 pour cent ci dossiers yi administration bi nag service yi ñu ci gën a ràññee muy service yi nga xam administrative ak finance bokk na ci li ñu mën a nemmeeku itam ci rapport bi le lim bi diggante góor ñeek jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo saisir nag ci at bi góor ñi jiitu am lu toll ci 61 pour cent jigéen ñi nag ñoom 7,3 pour cent kese la ñu am di leeral ni 31 pour cent yi des ay plaintes yi nga xam ne anonyme la wala sax ay collectif ñoo ko déposé